al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam auzu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalina sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin bokki al ibada wal xidma bokki jullit yi ñoo ngi dellusi ci seen jotaayu tafsir te mooy déggiinu alquran ci ay maanaam di nuyu bokk yépp di leen ziar di leen massawu coono di leen jaajëfal it di sof ci fi ñu yamoon te mooy inna allaha لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها mu ne yàlla day du am kersa du yaras mu muy jël ay misaal ci lu mel ni aw yoo te buñ tuddee aw yoo tuuti na lool te yóbbaale ba fa tuuti yam fa maa fawqaha ak it lu ko ëpp mu di aw ñay ci li xam ci yi ñuy gis ba ca bindee fi yàlla ya gën a kawe gën a rëy te mooy léeg-léeg ci biddiw léeg-léeg ci univers bi sax faf nga xam ne ëmb lu bari waaye univers boobu nga xam ne liñ ci xamagum sunu boroom am na yeneen yu ko ëpp fuuf te kenn xamu ko lu dul moom ak ñamu ko xamal loolu yëpp nag ngir bëgg a leeral rek muy doon loo xam ne ñi ciy gindiku mooy ñi gëm waaye ñi ciy sànku mooy ñi weddi rek ku ca sànku daal na ko wóor ne moom dafa bokk ci ñi génn ak topp te ñàkk lool ndimbal te bu ñuy wax ndimbal nag ndimbalul suñu boroom moo tax ñu di ko wax ndax moom ci la ñuy sàkkoo ndimbal moom it kott rek la ñuy jaamu jaamu ga di mën a amal ka koy def njariñ waaye ñàkk jaamu ga it wala ñàkk jëfe ndigal ga di mën a jural ka koy gàntal ab coono akub sànje akum mbugal yàlla nañ ci yàlla musal mu mel ni dañoo laaj ne ana ñan ñooy faasi xóone yi ñi gën a topp wala ñi ñuy jàppe ñi génn nañu ak topp alladina yanquduuna ahda allahi min bacdi mithaqihi wa yaqtacuuna ma amara allahu bihi an yuusala wa yufsiduuna fi l ard ulaika hum alxaasiruun mu ne ñooy ñi nga xam ne dañuy dog li yàlla digle ñëw di ko jokk walla ñu war koo jokk yàlla sunu boroom dafay xemem loo jaamam ñi ci ñuy jokk ak mbokk walla ak bokk waaye it dafay sikkal lool di wane lool yéesuk ku di ko dog wala jëmmi dogu bokk rek mu leeral ko ci suuratu muhammad di saaru muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca laayay ñaar fukkeel ji ak ñaar mu cay wax ne fa hal asaytum in tawallaytum an tufsiduu في الأرض وتقطعوا أرحامكم moo ndax jort ngeen wala xalset ngeen na génn yàkkamtee dem rek ba ne wërëñ wana ginnaaw rek daal di dugg ci ak yàq ci kaw suuf si di dog seenu bokk yàlla di moytuloo bindeef yi ak jaam ñi ne lii lu mat def la lii lu matut def la lii lu ëpp a def la te yett yooyu sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahu leeraloon ko ci laari liin wu ama am solo li mat a def defoon ko ci ñetti tomb ne loolu de mooy li yàlla digle muy ndigalul sunu borom loola nag ku am li muy bëgg àddina ak àllaaxira ci loolu rek la ko mën a amee li matut a def nag nee na moo di am po wala ak neen ndax nee na ku mu wàññiwut du ko yokk dara li ëpp def di ñetteelu tomb bi nee na mooy di teggi walla di mooy yàlla ndax àddina ak kat ku am gàcce mbaa ko naqari loole moo ko ko xañ te muy ak mooy yàlla yàlla nañ ci yàlla musal ñi nga xam ne bokkub deret da leen a boole te mooy ñu bokk way jur wu góor wala wu jigéen wala yaar yépp wala am nañ daal bokk goo xam ne bu ñu ko toppee danañu am foo xam ne danañ dem ba wenn way jur dana leen boole bokkuk deret googu sunu borom dafa digle te sopp lool nit ki di ko jokk dafa bokk ci àq yi nga xam ne nit ki daf ko war a matale te moo di ay warteefam nga xam ne diggante mbokk mu ne ak mbokk kon warteefu jokk ak bokk war na ko ci waaye mbokk mu nekk it yelleefu mbokk jokk la am na ko kon mu doon loo xam ne doonut lu kenn rek di taxawe kon ñe ko séq dañ koo war a taxawe te mu di jëf joo xam ne sunu boroom fonk na ko lool te digle ko di xemmeem loo jaamam ñi ñu di ko taxawe mu bari lool ay aaya ak ay hadis ak waxi salafu saalex ci loo xam ne da ciy soññee te di ko dëgëral bari it loo xam ne da ciy soññee te di ko feddali dafay mel ni yàq gi nga xam ne moom la sunu boroom di bañ nit ki taxawee ko ci kaw suuf te rekk wara a ittewoo defar ko ak di ko jagal kon ci jokk ak bokk bu nit ki bëggee defar bëgg fee wuutu sunu boroom kon dafa war a tàmbalee ci jokk bokk googe ndax ba malaaka ya di wàqante ak seen borom ci di mel ni wàcce gi sunu borom di wàcce nit doomu aadama ci kaw suuf da leen a xaw a jaaxal yañu ko limal bokkoon na ca tuur deret te ñàkk jokk ak bokk kenn weddiwul wala ngay am sikki sàkk ci ne mën naa àgg ba ci tuur deret kon yàq googu kaw suuf wala nekk fi di yàqu bu nu ci bëggee mucc bokk na ci la ñu cay gën a dimbali mooy ñuy jokk bokk gi nga xam ne bokk deret la waaye it di jokkaale bokk gi nga xam ne bokk diine la ndax bari na xadis yu ci rot bu jëme ni ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fi muy waxe ne na ngeen xamlu ci seenu askan loo xam ne da ngeen mën a jaar ba jokk seenu bokk loolu nag kon lanu cay jànge du lenn rekk lu dut am solo gu jokk ak bokk am na ko te nu war koo sàmm war koo dundal nee ku def loolu kon génn ci ak topp di yàq ci kaw suuf si di ñaawal ak xajamal ak bokk ulaika humul xaasiruun ñooñu de mooy ña yàqule te mooy ña pert te ñu mën koo jële ci kuy julo di yaxantu di jënd ka jaay bu jëndee dara teg calam cay teg am calamu cay am waaye jënd na dara di ko jaayaat faf jaaye lu yées njëg gamu jënde woon wala njëg gamu ko jote woon ci tafsiru tabari muy wax ne alxaasiruuna mbooloo la ci xaasir mooy an naaqisuuna anfusahum xusuusaha mooy ñi nga xam ne cër yëleen yàlla joxoon te mooy chance di ay tono di opportunité yi ñu mën a jëfandikoo ci lu leen di mën a indi leneen lu ëpp fuuf lañu amoon waaye faf mooy gañu mooy yàlla tax na mu xañ leen yërmaande ja doon tukkee ci moom sunu borom ni nga xame ne nit ki day jël capital xaalisam teg ko di ci jënd ka jaay léeg-léeg bu ci jëndee lu baax nit ñu bëgg ko mu jaayee ko lu jaadu danañ ko ca tegal loo xam ne alal ja day màgg rek di sekki di barkeel waaye su fekkee ne rek yaafus na wala mu ñàkk fayda ba jaayee ko loo xam ne yées na la mu ko jënde woon melokaan wu mel noonu moom la ñuy melal kii di yéefar ak kii di ab naafiq yàqule googu ñuy yàqule nag mooy ñàkk wala néewle lool yërmaande yàlla te yàlla bi muy sàkk yërmaandeem joojukat kenn taxut lu dut ay jaamam yi rek ci àddina ak bu ëllëgee ذلك يوم alxiyaam te bu boobaa fii sax nit man na fee nekk kenn du ñàkk soxlawoo yërmande yi sunu boroom waaye féexal gi muy nit ak yolomal gim mu koy yolomal dana tax mu dem ba xaw koo fàtte wala mu fakku wala mu naagu wala mu waru yàlla nañ ci yàlla musal waaye génnut yërmande yàlla jenn jamono wala senn sa ndax nokki gi muy nokki wala noyyi yi muy noyyi ngelaw lii di oxygène bu nit di dund di ko jëfandikoo ngir mu yeesal deret ji di ko génnewaat ngelaw loolu sax ci yërmandeem ci la aju ci yërmandeem ci la nekk ndax bàyyi gim la koy bàyyi nga di ko joxe ak muy dem ak a dikk loolu rek buñ ko doon natt duñ xam yërmande jooju nu mu toll dafa am jenn waay ju amoon xaalis lool yàlla def na too ko tawat joo xam ne ci xëtër yi muy poumon yi ci la nekk nam waroon a noyyee ngelaw li dugg ko génn xëy na mënatu ko waaye mu dem ci fu ñuy faje ñu takkal ko masque boo xam ne day yombal nokki gi dikk ak di dem di dugg ak di génn ba mu fa defee benn bis muy ñaar fukki waxtu ak ñeent ñu facturé ko lu cher ronkoñam daal di dal ci ab dënnam ndax lan ndekete moom noyyi gi muy noyyi bam juddoo ba ci bis boobu ñu ko takkale mask bi ndekete bu ko nit doon faggu ak yore ko ci loxoom ndekete nii lay jafe nii lay seere mu bëgg xayma nag ñaar fukki waxtu yooyu ak ñeent lañ ko ca laaj bu calculer woon ba mu juddoo ba bis booba vingt quatre heures yu nekk mu xayma ko lu tol noonu loola bu boobaa ñaata lay war a doon ci alal te yàlla da ko ko bàyyee defal ko ñépp dara warut leen ci moo tax sunu borom di wax ne su ngeen jéemee lim walla ngeen jéem a xayma wala di takk xéewali yàlla yi kat du ngeen ko man kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa ahyaakum summa yumiitukum summa yuhyikum summa ilayhi turjaun mu ne naka ngeen di weddee yàlla ji nga xam ne da ngeen a doonoon ay néew dee amu leen mu dundal leen rey leen dundalaat leen ci dund gii di dunduk daaru dunya ginnaaw jaar-jaar yooyu muy deeg dund ba yegg si àddina waaye nag su dunduk àddina gi day jeex te bu jeexee it ana lu cay topp mooy delluwaat ca sunu borom rek ndax ci suuf la nit ñi jóge doon ay nit di jurante dellu si àddina di war a faatu wara a dellu ca sunu boroom mu atte jaamam ñi kenn ku ci nekk fam ko war a yóbbu tam yay ci moom mu defal ko ko yóbbu ko fa ku ci nekk lu mu yeyoo ci ab neexal mu jot kum ci tëkku woon te bàyyiwut la mu nekkoon bu demee jot lañ ko doon tëkkoo walla loola dal ko lépp suñu boroom dinu moytandikuloo ak dinu xamal rekk lu am solo li ñu amee ci suñu loxo bu nu ci kenn nax wala kenn warut ñu cee nax lenn lu ci nekk nu war koo jëfandikoo fa fa mu yaye ca fa mu jote xéewal yi nu sunu boroom jox lenn lu ci nekk am na foofu bu fa nit àggee xéewal googa rek moo koy ëppal njariñ ca geneen ga ca des xel moomu nag nga xam ne suñu boroom dafa sàkk nit gindi ko jox ko am xel jox ko ak bëgg-bëgg wala jox ko ay bëgg-bëgg jox ko ay xememteef def bànneex ci moom waaye nag bàyyi ko ak boppam ngir mu mën a delloo yàlla njukkal sunu boroom ràññatle googu rek mënees na cee jël misaal alal li muy bari bari li muy neex neex li muy mën a jënd ci misaal ku yoroon lengob or bu ko wecc koo de mën na caa jënd ay bant yu bari waaye bu demee ba ci digg am ndox lab dikkal ko foofa bant ba la muy jar ak la mu koy la muy tekki mooy gën fuuf la nga xam ne moo doonoon or ba ca tolluwaay ya mu nekk ak la ko dikkal ca jamono jooja ngir xam nag kan mooy sunu boroom mooy huwa alladi xalaqakum wala huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian moom de mooy ki leen sàkkal lépp lu nekk ci kaw suuf summa stawa ila samaai fa sawaahunna sab'a samaawatin wa huwa bi kulli shay'in alim mu ne moom de moo leen sàkkal lépp ba noppi nag bàyyee leen ko abal leen ko def moomeel ga ak saña sañu soppax ca ci seeni yoxo ba mu ko defee wàcce na nit ci kaw suuf jox ko ay responsabilité jox ko ay man-man jox ko ay bëgg-bëgg def ci moom it man-manub mën a gëm mën a weddi waaye loolu ci ndimbalam mu bàyyee ko ak boppam moom daal di yemoo ca kaw asamaanam sa bu fekkoon ne jëflanteem nit ak nit la boo joxee nit kër walla nga dëkkal ko ci ab néeg boo xasee wan gannaaw néeg ba walla kër ga la fay xew boo ca montewul caméra walla amul ku fa nekk di la ko nettali manati nga bañ a xam lay xew ca biir kër ga waaye yàlla sunu boroom nag dafa jëfandikoo ci jeexitalu laaya ji ñaari baat te mooy kullu shay'in ak alim maanaam lépp lu man di doon rek suñu boroom xam na ko te xam ga koy xam siixatul mubaalaxa lañ ko tëgge te mooy ab xamaa kon ku dañ kumpale ci lépp ku xam la lool xam ngoo xam ne dara umput ko ci nga xam ne ci missaal nit xam-xamam lum mu jàkkaar lool rek lay gis waaye xam-xamub sunu boroom nag wàll yépp niveau yépp lum ca mën di doon da koy xam la ca nekk ak na muy doxe وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون كن bind bii di bindu fukkeel ak ñaar dañu koy yamale ci laaye ji ba suñu ndaje bii di ñëw incha allahu nu fas yéene cee fàttalente fas yéene ko ànd ndafa nafarandoo ko yàlla na suñu borom defal ñu ndimbalam ci dégg ak topp may ñu weeru koor wi nu nekk ñu dugg ci ak bismillah nu mottali ko ak alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.